naa sëñ Assane moom da doon ubbil da doon ubbil dalal gan ñi waaye kon euh, sëñ Assane kiy wax ci turu Espagne mën naa mën naa jege si euh, sëñ Fallou Dia mi ngi fi sëñ Modou Guèye sëñ Baye Fall Faye sëñ Aliou Diaw Trasa kon dafa mel ne sëñ Baye Fall Faye mooy wax ci turu kaddu Espagne. wax léegi ñoo ñoo fi teewal fédération Espagne. njiital sëriñ Mbacke Ndiaye jëwriñ sëñ Adi Touré El Hadj Abdou Ndiaye waaw ah, ah, coordonnateur général sëñ Baye mu Cheikh Moustapha Al Karim waaw ah, ak El eh, Hadj Mor eh, ak sëñ Dame Xarilo ñoom ñëpp rek kon sëñ Baye Fall bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki muxaddimaatul xidma seen mbokkum taalibe Baye Fall Faye mooy yëkkati ay kàddu ci ndigalul sëñ Assane Diop mi nga xam ni moo fi teew ak sëñ Fallou yi nekk sans wet ñuy jiital ci nuyoo bi Serigne Mbacké njaay jëwriñ fédération Espagne di nuyu le président d'honneur Baye Tambédou di nuyu bu baax tam ki nga xam ne mooy suñ jëwriñ ci Moukhaddamatoul Khidma ci Espagne Serigne Baye Dame Lo moom Cheikh Mouhamadou Moustapha Karim kàddu yi nag xam naa du gudd ndax li tax du gudd mooy toogaay bi ñu toog day toogaayu kersa ak ruus moo tax kàddu yi du gudd ndax bi ma déggee ci kàddu yi sëñ Abdou Lahad Bousso Thierno dafa wax ni budget bi nga xam ni moom la jumaa ji soxla woon walla moom la tibboon ren diaspora bi lim ci indi mu ngi toll ci vingt cinq pour cent def naa loolu nga wax. waaw loolu nag buñ ko déggee ak jataay bii nii mu demee ak jataay bii nii mu bakkanee te jataay bi nii mu bakkanee ak li fi lépp ci ay teraanga ñi fi nekk mooy ñi joxe vingt cinq pour cent ci budget jumaa ji kon ana ñi joxe soixante quinze pour yi mu mel na nag. nit ku baax bu la dee soññ walla mu lay yedd dalay teral ndax fam ne fa lay jaar ci jikkoom lay jëfalanteeg yow ñii nag ay gor ay gorlan ay garmilan muy Mbàkke ak Mbusoobe nii ñu def nii bu jàpp ni danoo def lu rëy ban ñu décoré waaye dañuy soññ lii ab soññe la ci loolu nag man maa ngi soññ jasporaa bi yépp ndax taxawaay bi am ci muxaddamaatul xidma des na jumaa ji moom kenn mënatu cee waar ab murit ndax xam nañ li fi ne du jar tuddi bayit du jar jéem waar kenn ndax murit bu ne xam nga li ci jumaa ji waaye li am mooy liggéey bi dafa des li tax mu des mooy tey bu dee lu mel ne Espagne fédération Espagne trente fédération lan boole mu nekk fédération Espagne fédération bu ci nekk lu gàtt gàtt ay daayira yu bari mi ngi ci ronam ci fédération yooyu man Tarragona gi nga xam ni man maa ko jiite fédération Tarragona rek juróom-ñetti daayira mi ngi ci ronam ngay boole lu mel noonu ba muy trente mu nekk fédération bu Espagne. nga xam ne vingt cinq pour cent yi ñuy wax ni diaspora moo ko indi képp Espagne mënoon na ko indi te deux millions yin wax ni moo jóge Espagne su ma juumul deux millions wala deux millions et quelque loolu buñ ko séddale woon ci trente fédération nga xam moom moo composé fédération Espagne kon fédération bi ne cent euros nga joxe te dëkk yi ni liim ci ñuy yëngu ci mu Moukhaddamatoul Khidma ci Espagne néew na lool waaw xaw jàpp ma ko de waaye néew na lool moom loolu nag la tax mooy jëwriñ yu bari dan lay def jëwriñ yu daayira nga defub seex fekk liggéey bu mel ne Muxaddamatul Xidma di liggéey bi xam moom moo war a nekk ci boppu liggéey yëpp bu agsee ci yow dangay ngay xool ka gën a ñàkk bopp ca daayira ba nga dénk ko ko jaaxaan yow te buñ la laajee amoo benn responsabilité ci liggéey Sëñ Tuubaa bi te bu nu wootee jataay yu mel nii nga mel ne man yaay wax caméra yi kii la nga jël sa image di ko partagé fu ne naan maa doon wax ci jumaa ji te dëkk ba nga nekk dangaa jël liggéey ba dégg ko koo xam ne bu dee wax sax kenn du ko déglu kon liggéey dafa toll foo xam ne am na ci liggéey yoo xam ni ñi nga xam ni Serigne Touba da jiital mbooloo topp seen ginnaaw ñuy jëwriñ Serigne Touba liggéey yooyu ñoom ñoo ko wala porté en main ñoom ko seen bopp waruñu ko jox kenn <coughs> loolu mooy dëgg mooy li war a am ñii nag def nañ li ñu war a def lépp. si ab Lahad mii wër na ba tàyyi sëñ Assane mii wër na ba tàyyi def nan lan war a def bu fekkee Serigne Touba la ñuy liggéeyal nag ñun duñ xool si ab Lahad bu fi ñëw wala si Assane bu fi ñëw ndax ñoom liggéeyloo wuñ ñu Serigne Touba la ñuy liggéeyal ngërëm Serigne Touba yaakaar danoo bu ginnaaw buñ xamee li ñuy liggéey lu mu doon ak loolee taxawaayam ci yoon wi lu mu doon ñun ñoo waram fulla ak pas-pas def ci yitte ba mu mel ni mu war a mel Espagne nag ay jàmbaar lan woon lii moom du ko yóbbal sëñ Mbacke Ndiaye donte bëgg na lool bu fe bu assemblée euh, générale amee wala réunion dana tudd kuréel yëpp nii nañ ci jàpp loolu waxin la waaye jëmmi organisation ak jëfin ak engagement dafa des. Espagne nag kenn mënu ko ñu Moukhaddamatoul Khidma waaye léegi moom raw gàdd ga moom ma nga Italie dégg nga ma ma nga Angleterre la tax mooy sëñ Fallou Diop mi ak sëñ Abdou Hakim dañuy ay borom Pastef yoo xam dañuy xëcc ña nekk seen ginnaaw ñun nag Espagne ci daayira Moukhaddamatoul Khidma sëñ Assane Diop mii bu jàllee. moom ku ci ku ci engagement yéen engagement amatu fa moom waaw loolu nag xasuma kenn waaye dañuy waxtaan xam ni jaaxaan bi ak nekk à l'aise nekk jëwrin jël yenn responsable Serigne Touba yi dénk ko ñoo xam ni da nga da ngay xool sa sa benn sa sa sas ndaw rek dénk ko ko daal di jaaxaan defoo dara te lay tuddee jëwrin loolu moo war a jeex looloo war a jeex lool lool lool su boppam moo war a jeex. jëwriñ da ngay sonn takk sa ndigg jiitu di wane yoon rawatina liggéey bi mel ni mu xadamaatu xidma jumaa ji moom kenn du man man su ma ne man sax dama jàngul bay wax ay baytu gën xamul waaye jumaa ji ci boppam kenn waratu cee waar benn murit ñëpp xam li fi ne bu dul dara Sëriñ Tuubaa mi yaakaar fa la tëdd te ñu ñii ku ci wàcc yàlla na yeex ci penku jumaa ji lan lay tëral kon loolu war naa tax képp ku jiitam mbooloo di jëwriñ yow yaa war a jiital sa bopp liggéey boobu nga téel ko sa bopp bañ koo dénk kenn loolu mooy dëgg loolu mooy li war a am jataay bi nag jataayu kersa la lii du teraanga waaye ñoom dañ ñuy wan aw yoon du ñu yett nan ko xamee noonu nan ko xamee ndax ñun defuñu lu tax ñu meritoo ñu wooñu fii di ñu di di ñu bëggee ak di ñu berndeel waaw loolu la de buñ jaawale ñii dañu yedd dañoo jaar seen jikko rek waaye dañuy yedd rek kon buñ fi jógee nañ jéem a defaraat taxawaay yi taxawaat bu baax ci liggéey bi mu yaatu rawatina Espagne kenn ku ci nekk moom na xool dëkkam rek nu muy def ba baax Espagne moom booy boo ñu jàppati bu baax ñu tàllaat loxo jëwri ni ñu jàppati bu baax toog waxtaane ko te organiser ko mu dugg ci daayira yëpp te ñu ko war a yor yor ko maa ngi jégg lu baax salaamaaleykum wa rahmatulah sëñ Fallou. jaajëf asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi leen di siyaare di siyaare sunu jëwri ñi fi nekk yëpp li li jëloon a wax lépp sëñ Baye Fall wax na ko li jaroon a wax lépp sëñ Baye Fall wax na ko matal na la kàddu yëpp daanaka amatul lenn loo xam ne luñ ciy teg la ndax ni mu ko waxee rek noonu la ak soññalewaat ci ñun ñëpp ak soññewaat la ci ñun ñëpp nii mu ko waxee kenn ku ci nekk kersa lay war a doon ci ñun ñi rawatina nag ñun ñi nga xam ne ñooy de ñooy ñooy ñoo nekk foofa te di soññe ci daayira bi man de soññaat na ma bu baax a baax ci lépp lu moo doon soññe daa mel ni kàddu yi ci man la féete wus ndax na ma daan soññe lu ci bari des na ndax loolu man dama koy jàppe ne man la soññe gi man la wax ndax li may wax sëñ Assane ne ko képp koo xam ne yaa ngi jëf ci foofa de yaakaar naa ne man la koy jëfal ndax li féete Barcelone ak li ko li ko wër yëpp fu ma ci masata fu kenn ku ci nekk fexe naa ba daayira bi egg na fa egg na ci yow kon nag lii su ñëwaatee war nañoo gën a amaat sa gën a war a soññaat suñu bopp suñ mu duggee nga ne suñ isaa nga ne la ñoom ñëpp ñoo foofa la ñu nekkoon ci daayira boobu suñ euh, Mouhamed Diop gisona di ko am Pastef koo xam ne moom bañ ma ko joxee liggéey bi foofu tamit moo moo taxaw ci fépp moo daan féete te ma nga fay féete di ci taxaw bu baax a baax kon ñoo ngi jéggulu bu baax nag ci kàddu yi xam naa ne li liñ ci bëggoon wax yëpp suñ baay Fall matal na ko kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Euh, jërëjëf Baye Fall sëñ Baye Fall fay ak sëñ Fallou Dia ñoom ñi nga xam ñoo mujj yëkkati ay kàddu te yëkkati ko ci turu fédération Muxaddamatul Xidma Espagne noonu mu ko waxee rek ci jëwriñ yëpp ab soññ la nag euh, bu ñu waxee jëwriñ yi rek buñ ci tuddee sëñ Bàkke Ndiaye mi jiite fédération bi euh, ak Baye Dame do coordinateur général sëñ Alaaji Abdou njaay ñëpp la ñuy tàbbi ci biir sëñ Abdou Sarr yi bàyyiwuñ kenn. Euh, li mu wax ne Espagne moom kenn ku ne xam ne ne lii ñu tudd ci diaspora bépp liñ fi indi euh, bu Espagne gépp wuy si woon ci niñ wootee kon danañ fi indi loo xam ne mooy ëpp liñ tudd diaspora bi lépp loolu déggoon ngeen sa Yaani Touré mu waxoon ko fii bu yàggut ne 60 nangam daayire ñoo nekk Espagne ñun dañ koy confirmer rek li Baye Faar wax te buñ xoolee li fi ñëw ci ay daayira dix lay doon wala quinze wala douze te buñ xoolee màggal gi loolu egguñu ci kon loolu ab soññ la ci man soññ la ci képp koo xam yaa ngi leen jàpp ci liggéeyu jumaa ji li tax ma wax ne nag nañu gën a soññ ndax Sëñ Aafiya day wax ne euh, ñun de suñ xel dal na ci waa diaspora ndax lépp loo xam ne liggéey la bu fi ñëw ñoom buñ ko yëgee buñ ci wuysee rek suñ xel dal loolu nag yaakaar naa kuñ ko féetalee war ngaa gën a jaaju war ngaa gën a waat euh, bi ci mujjaat mooy jaa indi kàddu jaa jëfal yu jëm ci waa France France nag yàlla daa dogal muy réew mu mag waaye fii nuy wax itam amuñu ay représentants yoo xam ne ñoo sasoo liggéey ba ci France di ko liggéey bu ñu xoolee at yii la fay jóge li ci ëpp man mi maa ko fay indi ndax dama fay dem saison été euh, ren ji indi naa fi 700. 42 euros ci ñaari marché laa ko laaj marché la Tranche ak marché la Faute sur ak la Roussillon bi daayira Serigne Touba bi nekk su ma lalee ba une ma jóg xam nañ ma ci jumaa ji marché bu ci ne ma taxaw fa ñuy joxe 5 ñuy joxe 2 ñuy joxe 1 ba ma dajale fa 742 euros ci un mois 10 jours loolu na jàpp naa waa France bu ñu defoon lu mel noonu kon dana am lu war a jóge France waaye nag bu bu bu événement ñëwee ca bopp ba la ñuy tàmbalee jot Alaas Bamba Thiam leeral ko liggéey bi euh, ak sëñ Xaadim may secrétaire général jot itam sëñ Modou Fall Kébé wax leen liggéey bi bu xoolee ren daaw ci koor gi la fa jóge li ci ëpp mi ngi jóge Paris bu ñu xoolee liñ ci bi ñu bi ñu envoyé woon cent nangam euro moo ci dugg muy benn compte boo xam dañ ko tas ci internet bi tas ko ci Facebook bi muy mu doon aw tur wu rëy ñu ne waa France ñu ngi coordonné liggéey bi te bañ xoolee la fa jógee deux cent mille la loolu tam dañ koy leeral waaw ndax turu diaspora dafa am lu mu yóbbul muxadamatul xidma fii ci dëkk bii Touba loo fiy coordonné bu ko déggee lim bu rëy rëy rëy lañ koy fooge fi mu toll nii bu nee diaspora maanaam ñoo ngi leen di ñoo ngi leen di fooge loo xam ne dan naan ñoom ñii ren ba déwén lii ñu indi du jeex loolu nag leeral ko day am solo moo tax ma di ko leeral nii buñ nee France koor gi yëpp ñu ne ay deux cent mille la fa jógee loolu te te ñu ci xam dooley France ak mbooloo ma fa nekk loolu dafa mat a wax bu ñu nee Afrique tey dégg ngeen ko réew yi li muy bari bari Afrique ñaari daayira lañ fi tudd ñaari daayira Touba Mali ak Touba Côte d'Ivoire. loolu dañ ko war a leeral ndax man dafa am ñu may woo naan ma sëñ Assane ak Guinée dégg nañ Afrique millions yu bari yéen yóbbu ci jumaa ja loolu tey loolu te loolu demeewul noonu kon nag leeral gi day am solo bu ko defee nag maa ngi jaajëfal waa. France googu ñi nga xam ne tamit ñooy waa diaspora bi li dale ci waa Espagne ak Amérique bu ma tuddee day day day day day xaw a manqué daal waaye nag bàyyiwuñu kenn waaw eh, di jot liwaat cant goo xam ne mi ngi jëm ci waa fédéral waa kii bi dëkk bi. waa fondation Amérique waaw. waaw waa fondation mu xadamaatu xidma sëñ am sa woo na ma léegi xam naa taw bi moo waral xam naa ñëwut waaye. nee na neew neel seen blaat ñoo ñoo yénn leen fi nekkal ñoom kenn ku ne gis na li ñuy jëf ci koor gi seen blaat leeral na ko ak li ñuy jëf ci màggal gi bu dee réew yi ci aju yëpp itam ma kenn daal waaw bu bu tudd naa daal réew yi ci réew yi aju ci bitim réew képp koo xam ne daal yaa ngi doon jàpp ci liggéey bi ñoo ngi lay jottali kaddu cantu daayira bi ak ngërëmul daayira bi ak ñaanu daayira bi ñu gën a soññ jaajuwaat na gën a soññuwaat ndaxte kat liggéey bii da ngeen ni ko sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Muntaxa waxee liggéey la boo xam ne mooy liggéey bi ndax fii la Seexuna si Ahmadul Xadim nekk te Seex Ahmadu Muntaxa wax na ne sëñ Afe yéen de seenub liggéey bu jagee liggéey yi ci yi ci des yëpp jag màggal gi li muy rëy rëy rëy amu fi benn dal boo fii dem ñu naan ay millions personnes fa wàcc fu jul jumaa ji màggal gi li muy rëy rëy amul fi benn kër gooy dugg ñu naan junni nit ak nangam ñoom lañ fa ñoo fa nekk ñu leen di añal ak reel daayira bi képp nga fi mën a wàññi fu junni ak nangam nekk ñu leen di añal di leen reeral di leen taxaw kon nag loolu ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéeyal sëñ tubaa ci liggéeyub sañ tubaa bi liggéeyal ko ci jumaa ji yàq naa benn féetewu ko kaw kon daal loolu lañ ci doon indi ci kàddu di sant waa diaspora bi yëpp di sant waa biir réew ak waa bitim réew di jaajëfal waa daayira bii nag waa daayira bii moom kenn ku ne xam ne ne ah, yitte ji ñu jox waa diaspora waxtu wu jine bu ñu yëkkati seen kàddu ba ci kanamu sëñ Bass Abdou Khadir sëñ Abdoulaye Muxtaar yëkkati na fa ay kàddu ci turu waa bi sant leen gërëm leen ci seen taxawaay leeral sëñ ma fëri Ndiaye mi ngi xam waroon naa teew te am sotaat ak yaram taxawaay waa Afrique ak taxawaay waa Europe yëpp bàyyiwuñu kenn kon daal loolu lañ doon indi ci ay kàddu sëñ Abdoulaye jërë ngeen jëfati liggéey bi lépp sell na carte bii nag ñu ñu def ni muy carte diaspora bi tam loolu maanaam identifié la boo xam ne képp ku ko yor ñëw ci jumaa ji soo ñëwee dana xam ne yow mii kat membre mu xaddamaat xidma diaspora nga ku am taxawaay nga ku ku ku bokk ci liggéey bi nga loolu su ko defee ne ñi nga xam ne ñoo ñooy jëwriñ yi soññee ñoo tax ñu wut koo kon képp koo xam ne tamit yaa ngi ci réew yi Afrique yi wala réew yi Europe yi soo jokkoo ak sa coordinateur général yónnee ko sa identification lépp bu ko defee incha allah des na la ko defal kon yàlla nañ ko teewe ay déwéni di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ci doole Cheikhul Khadim nag suñu borom boore fajal aajo yi ñëpp ci barke waqti xawaayi jëlli si na daamoo fi xidmati waab lahum maaraamu inna li seen saaramo li xidmati fa lahum diyaar wasal jannati waaw euh, jërëjëf sëñ Assane jërëjëf ci kàddu yi am na solo lool loolu nga wax tamit euh, am na solo daf naa ne France moom kon bu bu ñu fa amee jëf xëy na ci sa taxawaay la waaye tamit du fàttewuñ tamit jëfe yi jëfoon yi jiitu yi France jëfoon yi jiitu ci taxawaay ñoom sëñ Modou Kara ñoom ak sëñ Xaadim ak sëñ Modou Mamoun eh, kon jëwriñ la manqué dëgg-dëgg jëwriñ ju taxaw liggéey bi foofu te jàpp naa ne kàddu yi tamit France dégg ko sëñ Bamba Thiam mi jiite fédération beeg sëñ Modou Fall Kébé ñoom ñëpp wax dëgg yàlla wax nañ ceeg ñoom sëñ bu soobee imaam tamit mi ngi nii waaye def nañ ci ay jéego taxawaloon nañ fa benn association boo xam ne suñu am di mbàkk mii moo moo ko jiite woon waaye gis nañ ne dem nañ ci waaye doxut tamit doxut dafa taxaw euh, suñ imam bu somee it fa la nekk te ñoom xam naa ne jaxasoo nañu ak daayira yi tamit kon ñoom tamit sagam ñi ngi fii ci jataay bi te ñi ngi leen di déglu am na daayira yu leen di déglu loolu man xam naa ko kon war nañoo gën a di leeral tamit liggéeyu muxaddamatul xidma ndax bëri na fu mbooloo mi dem lenn ci suñu jëmm yi ñooy tukki ay tukki ñu jox leen kàddu ñu leeral liggéeyu muxaddamatul xidma am ñu fa engagé wu jëf ci jëf ju rëy Guinée Conakry bañ fay dem dañ doon tourné ji benn film bañ demee leeral liggéey liggéeyu daayira muxaddamatul xidma ci la suñu Babacar Ndiaye ñoom ñiy jël engagement bu rëy ba at mu jot liggéey bi day yokk kon tamit képp kuy membre daayira te nekk ci ab dëkk euh, kon suñ am di ak suñ imam jàppale leen ñu ci France am nañ ci jafe-jafe bu baax